xam nañ ne ñu ngi ci jafe-jafe. loolu moom defe naa monsieur sàmb leer na ñëpp. fitna am na dëkk bi neexul. parce que ñun ñëpp ku ci ne li nga. waaw mooy fitna bi li nga bëgg mooy. di dem ci jàmm li ngay def ko di ko def ci jàmm. Mm-hmm. waaw mais bu fekkee nag man sànq nag ma ne ko kon li ñaari situation de moo am. Mm. mooy xeex continuer mm-hmm. wala ñu toog waxtaan. Mm-hmm. affaire moom loolu rek la xam nga ñëpp xam nañ ne fi mu ne nii juboo amul. ku nekk yaa ngi xëxët wane ne yow yaa yore doole ji ñii bu ñëwee manifester eh, wax seen i wax yuuxu wante sax ci seen biir. yéen seen côté ngeen ne li amoon dootul amati. ñoom ñu wan ñu ne dañuy wane ne am nañ doole. comme ni ngeen ko waxee suñu côté aussi gis nga ko S24 am na nee nañ aussi dañuy wane ne am nañ doole waaye mais ma ne. defe naa bu ñu demee ba tollu foofu waruñoo toog waxtaan jàmm am mm-hmm. waxtaan bi bi bii dafa bokkul ak benn mm-hmm. ndax nag réew mi fi mu toll te si defe naa mosu fa toll mm-hmm. tey réew mi metti na donc président de la république nga xam ne moo jiite su wootewuloon dialogue vraiment ñu xeeb ko ndax nag yow mi nga xam ne yow yaa tax chaîne bi boo demee ba sa réew tollu fenn da nga war woon ni ñi ñu waxtaan léegi nag waxtaan mais booy ñëw man dégg naa PDS ñu def seen condition mais demal indi sa condition kenn moomu la kenn moomu la mais yow nga am sa sa xalaat ne yow waxtaan bi doo ci dem parce que yaa ngi calculer euh, la muy juri loo xam ne xamagoo moom li mu doon wax léegi ci procès pénal bëgg def verdict boo xam ne yow xamoo fan la lay yóbbu non je pense que nag réew mi war a ñoo romb foofu mm-hmm. tey boo gisee xalif général des mourides sëñ Muntaxa yónnee foofu xam naa ne message u jàmm mm-hmm. message su jàmm nag ay nit ñoo koy toogee waxtaane kon ñun man de li may euh, message bi may lancé tey docteur mooy da ngeen war a xool yéen jaloog boobu lan ngeen fay yóbbu bu ngeen ko xoolee na ngeen dem ca toog ca taabal ba bu fekkee ne ni ngeen gisee doxaleewuñ ko noonu bu boobaa nag ñu xam ne yéen amoon ngeen volonté pour jàmm am mais xëy na ñu ngeen nekk ñu nekk en face ñoom ñoo bëggul jàmm mooy ñun mais tey nag toog rek ne du ngeen dem jaloo ne mbir mi dañ koy xeex ci mbedd mi rente ci mbedd mi je crois que sénégalais xaarañu la foofu bu ngeen waree jiite jiite réew ëllëg da ngeen di nangoo def preuve de dépassement ndax guerre yi sax nit ñi dañuy toog waxtaan ndax gis ngeen ko céréale bi Russie ak kii sax dañuy toog waxtaan mm. euh, Erdogan teg leen ñu waxtaan ba céréale bi mën a dem fi mu war a dem kon nangu leen toog ñu waxtaan loolu bu ñu ko defee dara mën na caa génn loo xam ne lii yëpp dinañ ko dépassé waaye ku nekk bu fekkee ne da nga toog fi nga toog mhm. ne man maa yore dëgg ji man maa yore doole ji Sénégal du dem te loolu je crois que arrangé wul kenn